solidaire, Monsieur le le ministre du Travail ainsi que vos collaborateurs, je vous salue. Chers collègues, euh, veuillez bien recevoir mes salutations distinguées. Madame le ministre, euh, pour qu'on puisse parler d'économie sociale, solidaire et Sénégal puisse être la capitale du monde lors du deuxième trimestre 2023 et qu'ensemble, qu'on puisse faire rayonner le Sénégal, l'État du Sénégal, et je rappelle que la mairie de Dakar est un démembrement de l'État du Sénégal, pour éviter bien sûr le syndrome du Forum mondial de l'eau. Mais, euh, chers collègues, vous me permettrez de mettre l'accent sur ce qu'on a envie de créer ici, au sein de cet hémicycle, comme étant une actualité. Madame le ministre, après vous avoir salué respectueusement, vous me permettrez de surtout saluer votre élégance. votre courtoisie, en espérant que les couleurs nationales que vous portez sur vous brilleront demain et brilleront encore jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Chers collègues, je crois que nous devons faire preuve de tenue et de retenue, tous autant que nous sommes, ñun ñëpp ñun ñëpp ay mbokk lañu. Je l'ai dit au président du groupe parlementaire am na lu kenn dul nangu xamante nañu bu baax a baax suñu biir dañuy politique yàgg nañ fi taxaw je ne suis pas à mon premier mandat de député fekk naa fii ñu dóor député di ko dëri ci biti kenn mësu fi bouger big maam jaara femme bañ koy dumu fii suma kër laa toog di setaan kenn waxut dama ne big ba ñuy jël fii jigéen journaliste buy liggéey buur gédé dóor ko euh, buur euh, site buur dóor ko fi place indépendance ba mu tëdd ci suuf kenn ngaangu ngu fii dama ne dama ne dama ne lu ma wax dama bëgg a wax ci leer képp ku fa bëgg a wut fii porox ndóol ne yaa ngi wut porox ndóol ne da ngay jéem a daan fii quoi que ce soit ci kaw député pour dugal ko ci kaso yaa ngi nax sa bopp na ngeen jéem rek mais il faut pas dire que vous n'avez pas été informé ni averti on ne l'acceptera pas lu ñu tënk ñu ñëpp fii mooy réglement intérieur suñu toogan fii ñaari député di dóorante fii laa wax ni le procureur de la république mënu si dara yéen ñëpp gis ngeen fii à travers le monde des, des, des, des assemblées nationales, des députés qui se battent, qui en arrivent au point il y a même des effusions de sang, il n'y a aucune arrestation. Nous sommes protégés en session par une immunité parlementaire et par le règlement intérieur. Maintenant nag c'est très simple comme waxu violence ngeen di wax dama ne du ngeen nekk ci dëkk bi di rey ay ñoom François Mancabou taxaw fii di wax ay waxu violence. dama ne du ngeen taxaw fii di rey Fulbert Sambou taxaw fii di wax ay waxu violence. dama ne du ngeen fii rey 14 morts taxaw fii di wax ay waxu violence dama ne du ngeen taxaw fii tey su leen neexee mën ngeen wax y pas de problème ñun ay nit lañu man hôpital principal la jóge demoon seeti Fatou Gueye jaar fu notre honorable collègue nekk j'ai demandé ces nouvelles pour ne pas la déranger sur les vidéos tout le monde a vu ce qui s'est passé tout le monde on a certes vu un député descendre ici allait mettre une claque à, un autre collègue député. Ce n'est pas une première. Mais tout le monde sait c'est quoi une arme. Député bu fi dugg jël ce qu'on considère comme étant une arme jëmale ko ci beneen député on considère effectivement que le procureur de la République peut s'autosaisir kan moo fi njëkkati yëk kan moo fi njëkkati yëkkati yëkkati fi chaise chaise arme la parce que chaise wala marto mën naa ko jël dóor ko doomu aadama gaañ ko kan moo fi yëkkati chaise du benn yoon mais ñaari yoon ci vidéo bi vous êtes des de la presse ouvrez vos yeux et exploitez l'information de façon objective et de façon constructive s'il vous plaît je vous en prie s'il vous plaît un peu de tenue et de retenue on n'est pas là pour aboyer on est là pour échanger on n'est pas là pour se disputer on est là pour discuter je vous invite à vous de la presse euh, honor, je vous à la presse honorable, honorable, je le dis je le répète je vous invite je vous invite à revoir les vidéos s'il vous plaît vous arrêtez le chronomètre s'il vous plaît président bloqué, de séance c'est bloqué merci mes chers collègues mes chers collègues je rappelle que la parole est libre le débat est libre chacun peut

L'article 55 d'abord. L'Assemblée est un lieu par excellence de débat démocratique. Celui-ci doit être serein, courtois et impersonnel. Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant et toute interpellation de collègues à collègues sont interdites. Deuxièmement, article 68, aucun membre de l'Assemblée ne peut intervenir qu'après avoir demandé la parole au président et l'avoir obtenue, même s'il est exceptionnellement par un orateur à interrompre. Je vous de respecter le règlement intérieur. Honorable député, vous pouvez continuer. Je vous remercie. Depuis quelques jours, on observe ici, je le dis bien une certaine, et j'insiste sur une certaine presse, qui veut nous faire croire qu'une députée a été comme ça de façon délibérée violentée. Est-ce que c'est la première fois que des députés, je prends ici le président du groupe parlementaire Wallou à témoin, l'un des plus expérimentés dans cette, dans cette Assemblée. Est-ce que c'est la première fois qu'il y a des actes de violence ici Ce n'est pas la première fois. Est-ce qu'il y a des poursuites judiciaires Aucune poursuite judiciaire, parce que le règlement intérieur est clair. On ne peut poursuivre aucun député pendant une session. Warji Moylan, Nufi Begewood Ndol, il cherche à domestiquer cette Assemblée, particulièrement cette opposition, on ne l'acceptera pas. Il cherche à aplatir cette dañu xeex raak ba dugg si fi lan nañu gisul lan nañu déggul lan nañu lan nañu dundul nous avons été soi-disant éliminés avec notre liste nationale nous avons soi-disant été encore une fois de plus été des euh, on peut est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut arrêter ça s'il vous plaît est-ce que vous pouvez m'arrêter ça s'il vous plaît Honorable. Vous m'arrêtez d'abord ce bordel d'abord. Ah, Après on continue. Mes chers collègues. Mes chers collègues. Vous n'avez pas la parole. comme na ngeen ay mbéj moo leen di a tere nelaw kaay rek ne ne jeune pesu la. honorable honorable reewantu tubéy la. dama ne reewantu tubéy la nekk leen ñit vous allez respecter les gens parce sommes pas là et nous n'accepterons pas d'être apprivoisés nous n'accepterons pas d'être domestiqués et nous refusons de nous aplatir l'injustice qu'il a dans cette assemblée nationale nous ne pas et que personne vienne s'ériger en donneur de leçons de morale pour nous dire comment nous devons nous comporter. Nous exprimons toute notre compassion à notre collègue qui a été violenté. Je le répète, une fois de plus. Regardez la vidéo objectivement et commentez-la. Le procureur de la République n'a absolument pas à se mêler de cette histoire. Il n'a qu'à aller s'occuper de l'histoire de François Mankabou, de l'histoire de Fulbert Sambou, de l'histoire Aujourd'hui, je le répète, une arme, une chaise est une arme. Une gifle n'est pas une arme. Que le procureur de la République fasse preuve de tenue et de retenue. Mais à ce titre aussi, ñu ngi masawu képp kuy jigéen parce que jigéen la ñu jur jigéen la jur suñu ay doom wante dama ne nañu ànd ak dal gis ngeen lii mbokk yi lii yëppay jeex ci ci nettali lay mujjee nañu góorgóorlu ba nettali bi rafet maa ngi jóglu tamit askanu Sénégal bu baax a baax monsieur le président je vous remercie. je vous remercie honorable